nangami junni at yaramam suuf lekk ko yaa xam dara desatu ci te du war a réeroog roo xam ca saahir nu muy man nekk yàlla ban technique lay jëfandikoo pour loolu am ñu ni yàlla kenn du ko tudd di tudd technique namm namm day tudd nam ma nam ma ngay tudd waaye doo tudd technique nama ma gis nga euh, bi nu nekkee ci daara ji danoo jël weñ ñu naan weñ gi acier la tudd acier tudd boo ko jubalee weñ rek weñ ba tëb laxasu yàlla nee na boobu façon la yaram bu ne sa ruux yang yangi la noonu la laa jàppe même boo soppi lu ko suuf sax yoonam nekku ci parce que ci suuf la la jële woon te ne bu jëkk bee gën jafe bu ñaareel bu jëkk bi moo gën jafe bu ñaareel bi ko defee foofu la doomu aadama yëpp di daj amul nit ku ñuul amul nit ku weex parce que kenn du fa ñuul kenn du fa weex façon la ñuy am boo xam ne di nga xam ni kii dut seen la wante doo ko mën a wutal couleur mënul nekk mënuloo ko gaañ ba mu nàcc mënuloo ko ñaqaloo mënuloo ko tilimal pour mu sanku mais nga xam ni kii moom la moom nga daan àndal dut seen mi ngi kenn du des du jinne bu ko defee malaayika yi nag ñooy wër safan la yatakallamu illa man adina lahu rahman إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ولفوه الدب كاينو دم فما خاني دي بن فوقين جارتي بان ما خاني فمو دي بن دوفي Uh-huh. loolu moo tax bi occidentaux yi jaaxle ba jaaxle dañu mujj yónnee Espagne espagnol yi yónnee Bagdad pour jël contact ak intellectuel ya fa ne ka ca gën a dangereux nègre la mooy maamu ñoom kan ñile nègre la te moo ca gën a dangereux kooka la daje ni ko dama laa yóbbu Occident lu bëgg ñu defal la ndax foog ni li muy nit ku ñuul mooy gën a yomb eh, ñu ñu convaincre ko pour alal pour daraja xam nga lu mu ko tontu ñu ko xuliqtum min tiinatin hamqa moo tax ñibbiwul moo tax ñibbiwul fa la toog ba am fa ñaar fukki at xam nga ci kan lañ ko yónni woon pour mu jënd yóoru kooka mooy عمرو بن عثمان اك عمرو بن بحر ممكن الدانجر بو ابو الفرج باسي تي انتلكتوال ني عمرو بن عثمان دو خمو moo def albayaan wa tabli benn téere ba ñëw fii te taalif na juróom-ñaar fukki téere ak ñett benn lañ ciy jàngale fii moo tudd jaaxiru moom lañ koy dàkkentale waaw waaye mi ngi tudd am lu baxar xam nga lu lu lu lu bàyyi ji daan liggéey sàmm gëléem jëmmal mais boobu sàmm gëléem mook jaay Mercedes benn la parce que boobu gëléem mooy xar désert yi li gëléem man ci désert fas mënu ko baax la mënu ko booba baax la mooy Rolls Royce baax la imam Shafia yi ba di nga gis xale yu topp ko suba ba ngoon ndax rafet gaag teg ñu liggéeye wurus ak euh, dara bu sooy yañ ca lalak booba mag ñi am dara ji dëgg baax la rek la war parce que dafa noppale fas dafa tëb euh, euh, góor gu amul morom la woon euh, imam Shafii man ku ko admiré la xam nga moom ku mu gën a admiré ci àdduna Malik ibn Anas boo ko tuddee rek mu tiit te nag am na côté yoo xam ne du ci moroomu Malik te mooy côté yi mu mën a déggoo ak ñoom gisaa yi mu war benn banc la dem di seeti benn góor bu baax bu feebar góor gi darajaam jàngam alalam ak doomam bu ci nekk mënuloon natt valeur ba كوني شافعي مولاي سيسي كيسا فيبر دفو تب دوم بي تي كوني كو مي لوخو مولكو شافعي موما سيسي مولكو مي خنا دون نيت غورغي ني بات مولكو تيتل مونو فك لا جي لال بي يا فيبر تمولا سيسي غورغي جوك سول دالام جند تي بيتي dogale jafe indi ko ba ci kaw lal bi teg ko ci Shafii yi di dem mu di ko gunge xale bi ni tey mu dee bàyyi bi téyel Shafii yi Shafii yi ni ko da nga feebar mënu ko bu ma xañ sama barke téyel ko ba mu yéeg mu jël geenu baax bi fóon ak ni mu toll ci dara bi doom bi defe ni kii dafa dof mu gestu ni doom bi la yanaalu lilma man lam yashubna danaba hadihi albagla ni ko yàlla du barkel jàng ku fuunul geenu baax la bile xam nga ñoom ñoo xamante ñoom ñoo xamante mais seen njaboot yi kenn ku ne sa papa rek nga xam te kooku it wax dëgg yàlla eh, ci noblesse la bokk yow bul xam ki man sa papa mukk na sa papa xam moom ku mu mën a ku mu mënul mi yow doom bi bul xam ku man sa papa mukk moo tax bés muy dem jàkk warul baax la bi bëgg doxantu doxal tànkam mu dem àddu kalpe ya jàpp futti ko moom imam Shaafi lapp ko ba yàlla xotti biiram ñu summi bot ya mu soloon jël xaalis ba kenn ku ci soloon sagar yoo xam ni dindi sagar yi lëmas ko ko ba mox ko mu daw dugg ca jàkka ji làq ci ruq ba kenn gisu ko ba mu julli ba nag ba mu génnee nag muy reetaan boobu mu wax ci wayu arab ni alayya siyaabun لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكبر موني مانجي سول يري يو خامني كولين بولي وون ليپ جاري كو سي بوري دو جار Eh, bu rëy defe mooy ñaari suuf wala déet ok ah, ah. bu rëy piki ma defe ni mooy ñaari koppar suuf آه. من علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكبر وفيهن نفس لو يقاس ببعدها نفوس الورى كانت أجل وأكبر أه mu ni sagar yooyu nag bakkan a ngi ci boo xam ni bu ñu jëloon bakkanu doomaa ba yépp teg leen ci Eh, eh, eh, balance fi jël bakkan booba def ko ca ba ca des mu wat leen waaw tiitaru dafa xam